journaliste wala communicateur bu trahir Eumeu Sène ndax du yow. non journaliste lañ wax man communicateur laa du ma journaliste Pikine laa dëkk nag mais du ma journaliste communicateur mais nag man saale bi am naa fayda ju toll nii du ma fréquenté mbër kër mbër duma leen fréquenté du ma fréquenté kër promoteur xam nga lu may bañ Lamine dara xew ñu ni saale bi nga fekkoon na ko man liggéey sama kër jàmm rek laay dox dama la ziare. dañ yàlla nag def reportage dañu ne benn journaliste wala communicateur moo trahir Eumeu Sène ndax du yow. oh Lamine loolu duma ci wax moom xam na kan la na ko wax fésal ko bu ko baaloo it na ko wax àddina xam kan la man yooyu duma ma ci wax man du ma du ma pour cër yooyu yooyu waxit yooyu du ma pour yooyu. dama dégg rumeur ñu ne dafa am benn journaliste xaw ma communicateur bu trahir Eumeu Sène ndax du yow. non ñu ko journaliste. wax ñu communicateur journaliste lañu wax bu fi indi benn problème journaliste bi nag bëri ñun bëriñ fi bu nu matee ñeent ci lañ bokk seet leen ko ci seen biir yow yow journaliste nga ak keneen ak keneen seet leen ko ci seen biir ñun nag ñu yi duñu duñu duñu xaritu Eumeu Sène te Eumeu xaritam la wax ñun ay bàyyi Eumeu Sène lañu ak ay nijaayam te man li ma wóor ba wóor mooy sama portable bi boo ko vérifié amul benn numéro mbër. ndax Bécaye dafa def benn émission ak Eumeu Sène ñu naan benn journaliste moo ko trahir nga baal ma est-ce yow. li may njëkk a wax mooy nañu xam ñan ñooy journaliste ak ñu dul journaliste man mi di wax ak yow animateur chroniqueur de la du ma journaliste na gars yi identifié wu euh, kuréelu journaliste yi war nañu agir ci loolu ñu identifié ñan ñooy journaliste ak ñu dul journaliste mbër yi nag ku ñu jot ne journaliste te ñun ñëpp du ñu ay journaliste ay animateur ñoo ci ëpp ak ay communicateur traditionnel que ça soit nañu bàyyi nañu bàyyi euh, fonction yenn yi journaliste dafa am fu muy génne Amath Sène bu nee journaliste kooku na xool ndax journaliste la et puis kuréel journaliste dañ ko war a interpeller mu identifier ko bu dee journaliste la dañ ko war a radier mbaa ñu éliminer ko parce que kooku yemul ci liggéeyam éthique ak déontologie la ñu wax kooku amu ko Amath Sène aussi nit dangay ñeme li def nit bu la toll foofu ci trahison traître la traître dañ koy weer loolu la loolu laa ci wax. yow daal pour yow na ko weer. da ko war a weer mais un traître la il a un ami traître un traître dañ koy weer Lamine man nag aw ma xaritu mbër nijaay laa man a yem ci ñoom baa baay ku ma ci jurul nijaay laa mën a doon ci yow aw ma ci xarit te man nag du ma xaritoo ak xale. dañ ko trahir es ce que yow la. bàyyi ma waaye yow nga naan ma. dama la laaj. ba mu waxee presse rek la ñu teggi ñun du ñun man sama xarit la gaa mais du man xaw ma la nag. xaritam la wax kon yow la. <laughs> non mais du presse écrite nee na la te day day wax si làmb te dafa yor micro kon du ñun. est-ce que yow la ragal wax comme sa xarit la doo dem seeti mu leeral parce que fi mu toll nii kenn seetul. waaw mais bon xam naa dinañ ko mos def dinañ ko def fii ak ay rek dinaa dinaa dem waxtaan ak moom non du ko dem wax kan la sax xam kan la dama yem ak rek si lu bëri parce que làmb dafa xaw doy waar dañaa waxtaan ak moom bu baax en tant que frère ak sœur mais dama ko laaj sax kan la parce que soxlawu ma xam kan la franchement. Malick nuyu la. maa ngi lay fay Mouhamadou Lamine Samba. maa ngi lay bu wér. wax Touba allah tubaar fa kàlla kar Serigne Abdou Karim Mbacké teeru la nit lëkkalaay sagal na taral na ko yow fa mais dafa am lu ñu naan dafa am benn mbër benn euh, journaliste bo xamni euh mo trahir Eumeu sen ñëpp sen xel dem ci malik chandou motax ma tàllal le micro bi xam nga man ma gëna wéx donc man mi di wax ak yeen ma gëna wéx donc mais bi yoon kenn tuddu ma ki lañ tuddu malay lay laaj. waaw euh, Lamine xam nga lolu pratiquement man euh, wul commentaire buma ci def quoi parce que amna lu nga xamné sama juddu mo ëpp lolu sama yar. moo ëpp loolu sama diine moo ëpp loolu tarixa bi ma bokk muy tarixa cheikh te gëmuma kudul Seydi Aboubacar si moo ëpp loolu profession bi ma toll ak niveau bi ma ci toll moo ëpp loolu dégguma nag ama seen tudduma publiquement ay nit ñoom ñooy wax rumeur yi mi ngi yegg si ci man mais li ci kanam rawu li bët maa ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad Rasulullah ci barke Seydi Aboubacar si lépp yàlla na leer ba leere ni jant bi foofu rek laa ci yem li ci des no comment ba ca kanam. waaw man la maa sàcc ngeen ba ëmm seen eh, yaakaar naa ne ñun journaliste bu ñu toogoon suñu place am na ñu dul jiiñ mbër mu ne jaar na sama kanam man ba may gune nekk kuma journaliste supporter Robert Diouf laa woon waaye Robert mënuloo na am. li ma nekk gone gone mu nax ma ba ma ñu ko kenn bi ma fa jógee dugg ci journalisme ci laa génnee far ci sama xol amatuma kenn ku may faral mbër doo ma jege buñ bokkoon ndeeg bàyyi te ngay bëre buñ ñëwee làmb ja mel ne mbër nga dootoo sama mbokk kon bu fekkee ne mbër dem na ba naan journaliste moo sàcc sama ngemb moo ba fu mu war loolu yegg waaye journaliste bi tam bàyyi métier egg fu mu warloon yegg ñun ñëpp ku nekk da xam fi nga war a yem yow Lamine boo dee bëree ma xaritoog yow boo defee njaaxum est-ce que man naa ko wax damaa war a am équidistance ci ñi nga xam ne dama leen di couvrir du ma farak kii du ma farak kee euh, loolu ñun ñoo war a xoolaat suñ bopp xam fu ñuy yem ci mbër yi mbër dina la for bëgg laa won na parce que yaakaar na ci yow nga siiwal ko bés boo liggéeyatul ci journal ma rajo ma télé mu botti la sànni kon ñun ñoo war a xam fan mooy suñu place lan mooy suñu cër. Ama dafa waxtaan ak sa papa Bécaye ne journaliste moo ko trahir moo sàcc ngembam ma lay laaj mbaa du yow. non du man du man te wax dëgg yàlla weddi tuuma dura du dara setal sa bopp la du te aussi bu fekkente ne loolu am na ki ko def def na loo xamante ne ni c'est pas professionnel def na loo xamante ne liggéeyam mayu ko ko yoon mayu

sànni na rek leetaram wax dëgg yàlla man de Modou Mbaye xale laa damay jàng xamaguma ci yooyu dara ah, wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla te duma ci wax. ma jàngatee waxu Eumeu Sène. teguma ko muy dara ndax li tax teguma ko muy dara yàlla dafa def ma yàgg ci làmb xam làmb xam xelu mbër mbër yu mag yaa ngi ne mbër mu ma sa daanu fi wut nga lay mbër mu daanu rek sa cumukaay dina yëngu di nga dem sax ba sa doomu ndey wala sa doomu baay. wala ka ka nga gënoon jege ne moo ma yàqal loolu am na fu ne man gis naa ko mbër mu daan nag da ngay daal di toog yokk sa bopp boo daanoo wut koo ko jiiñ loolu moog làmb ñoo ànd waaye loolu dafa bokk ci li nga xam ne day yàq parce que boo nee euh, diw kuy liggéeyee fenn te nangu woo waxtu léegi euh, da ngay loolu xaw ma ndax maa ko wax waxu ko mais loolu du cëram parce que ñun bërekat lañu xam nañu bu baax lan mooy prise ak contre prise Gris Bordeaux lu mu amul ci tànk Modou Lo pied gauche am boobu mais am parce que ñoom ñaar ñëpp ay pied droit lañu xam nañu làmb ni muy tëddee moo tax yenn bu fekkee maa ko wax day juum na quoi. xewee Eumeu Sène nga jël mu ne ab journaliste moo ko jaay. ñu bari ne léralo ndax waron nga gas mané len borom sutura nga mais lolu ama sen wax nonu noko gisé parce que kenn seetul du man du kenen du kenen du kenen du kenen du ma la ndax am nga indice lolu noko gisé eh, awma fenn indice ama sen wax na wax bi xam nga buma ma ma bañ ko tek mais buma ko tegul day melni ñun démocratie bi presse bi di woté du deug parce que dañu war di bayyi souvent parce que man lu ne lan may wax. man booy ubbi Facebook beeg yooyu man lu ne lan may wax lu ne lanuy wax te yooyu yëpp dañ ko war di accepter comme que ñun ñooy wax ci ñeneen day am un moment boo xam ni nit ñi dañuy wax ci ñun xam nga man li ma ci jàng rek lenn la danoo war a yem danoo war a yem ci reportage mbër yëpp ñu yemaleen ñëpp doon sunuy xarit li bon du baaxul nga dem fi wax fa lee dem fee wax fee ja loolu baaxul mais nag mën nga man mbër yëpp samay xarit ku ma ci toogal da nga naan kii mooy mbëru bekkaay sax dégg nga damay wax ak mbër sax mu ne diwee sa mbër yooyu aayul mais li bon toog ba un lutteur di la accusé ci ñu yaa ko jox loo lu ko daaneel yooyu nag quand même ko defee defuñu loolu suñu waree. Sénégalais yëpp li ñu la sikkee mooy lu tax xóotaloo. xóotaloo pour jéem a xam mooy kan. non man du ma jéem a xóotal même bu doon ni xam naa du ma ko wax même bu doon xóotaloon naa hors antenne ko wax wax na li mu wax. ku nekk na nga ci gis sa bopp wa ku ci gis sa bopp moom la képp koo gis muy toog di ko xultu di wax nangam moom la waaye am na yow Lamine Samba yow xalaatoo ci dara wóor na ma ni yow lijjanti woo ko parce que wóor na ma ni xam nga ne du yow man wóor na ma ni xam naa ne du man mais le reste nag man mënu maa juger kenn. est-ce que Eumeu jaaduwul woon bu tudd tur. non non laaj naa ko journaliste écrit la ne mu ne ma déedéet manager la mu ne déedéet ma ne kuy feeñ ci télé la mu ne ma kuy feeñ ci télé wax la. mais léegi le reste mais xoolal ku nekk na nga xoolaa